kii yi ñu ngi bu baax a baax ku ci nekk ci turam ak ci santam di amaat ci ak contentement di jàkkaarloowaat ak yéen ki ñu jàkkaar loolu mooy ambu di xale boo xamante ne nii Pikine la nekk di bay waaram bu baax ci làmb def 4 combats 3 victoires benn défaite mais nga jógee ci ndam lu rey keroog ci weekend bi sa waa gox ji la sargal dañ lay bàyyi nga nuyoo ak internet yi après ñu waxtaan ci làmb maa ngi lay siyaar. waaw maa ngi lay yokk siyaar. naka làmb waa waaw làmb ji dund rek. waaw ñoo ngi koy dund moom. mun nga ñëwaat ak nit ñi ci kan mooy ambu. waaw ambu benn xale la rek. di doomu Pikine dëkk Pikine juddoo Pikine maa ngi Pikine yaroo Pikine waaw ambu benn xale rek la bu nekk Pikine waaw ambu xamul dara ambu xale la rek. moo la ci làmb. waa làmb lu ma ci dugal bëgg-bëgg la waaw ak amour. bëgg buy bëree mam wala dara da nga bëgg rek dugg si. waaw dama ko bëgg Euh, ñu ci mel ni samay mag tax nañu bëgg ma bëgg làmb waaw suñuy papa papa Falaye Bale suñu papa Pape Diop waaw ñooñu wax dëgg yàlla làmb pour man Pikine la sookee koo daal waaw. depuis kañ nga dugg ci ku bëre dóor. waaw bëre dóor bi ma ci duggee yàggul parce que xale laa mënuma jàpp sax ban année laa ci dugg parce que bàyyi moo ko xel man lépp lu may def du ma ko doon bàyyi xel. mais léegi màgg naa waa. ñaari combat def. waaw man maa ngi def quatre combat benn défaite trois victoire. nga man ki ma daan euh, ni nga nanka bu yëmbal maa ko daan. mën a xeex. waaw maa daan serpent. te mu nekk rek énergie champion bi serpent. noir. waaw xam nga ko. mën a xeex. mën merci maa daan. guy gi deux bu géejawaay reenu guy. guy koy maa daan. man bëriwuma ak ay cuune quoi ñu ma bëreel ñëpp yàlla def na ni làmb xam na leen bàyyi na leen xel ñoom ñëpp dama bëri ak ñoom yàlla may ma ci ñoom ndam la daan. man ki ma daan géant la. waaw daan mais lu ma xam loolu làmb rek. mais maa ngi woon ak tamit ay gàllankoor yu métti mais sant yàlla waaw mais sant yàlla daal te incha allah fa lay yem gëm naa ko. noo gisee làmb doon xale dugg si di ci bay sa waar des fois lamb dox des fois lamb du dox noo ko gisee. waa làmb nu ma ko gisee mooy euh, métti na métti na trop parce que dañ koy dund ay jeunes lañu mais des fois dañuy dund ci làmb loo xamante ne des fois dañuy naan ndegere lamb du ay fo. te man dama gëm ne làmb du ay foo waaw làmb la nag daal mais làmb du ay fo. du ay fo lan noo koy expliquer làmb du ay fo. waaw du ay fo mooy làmb carrément lu mu laaj dafa bari te ay ndaw lañ mënagu ñëw dajal lépp mais ñoo ngi jéem waaw soo ci ànd ak say mbokk ànd ak ñi nga war a àndal ànd ak say doomu ndey say xarit waa koñ bi yëpp nga sekk ak ñoom jaamu pour man ba léegi làmb moo ngeeg yow daal waaw. moo waral lii parce que doon xale am 4 combats dong wax nga ko sa bund kër fees dell ndax ndam lu rëy li nga jóge ñu lay sargal naka nga dëkkee ak ñoom. waa man tey ku ci mel ni pegaay mbay Pegay Mbaye seen service ñëpp xam nañ ko tey ñooñu amuñu seen fay ñooñu amuñu seen fay dañuy am combat ñuy jàppale waaw ku mel ni ay ñoom Pam xam nga ay ñam si persi xam nga waaw ay ñam loota tey am na ñoo xam ne ñun mënuñu leen fàtte daal waaw jàppale weesoon li sama yaay Gigos sama yaay mère Gigos sama papa maître Bari ñoom ñëpp tey jàppale bi ëpp na lii mais dañuy dem ba ci kanam après ma sant ñu may jàppale ñëpp waaw. fi mu toll ko yaa ci yoon nekk ci lancé. sa waa gox yaakaar la ñan nga bëgg a bëreel instant yi waaye instant ñu ma bëgg a bëreel bëri nañ samay naataango ci làmb instant yi ñëpp xam nañ ko waaw comme lu ma waxoon démb ak ku ci mel ni Ada Fass Colifay 2 xam nga li ñooñu ñooñu diisuñ ay Liss Ndiago dafa am tey ñooñu ñëpp samay adversaire samay adversaire lañ bu dul ñooñu bu dul ñooñu waaw bu dul ñooñu làmb moom ma boole ak yeneen i ndaw rek te man mënu ma daan sama morom yëpp waaw. am nga ci juraare bu la neexee laaj ku la neex. fa gars yi may ma chance ndax xale laa gars yi may chance ma bëreeg ñoom. Fass daal nga bëgg dafa mbër Liss Ndiago Coly waaw na ma gars yi na ma ñooñu ma la limal noonu samay morom lañu dañoo war a bëre ñaanu ma leen chance mais mag ñi laa wax mag na dañu may chance waaw man loolu laa wax ñooñu samay morom lañu dama war a bëreeg ñoom lu ñu def stade lu nekk dama koy def. lu ñuy def stade lu nekk dama koy def buñ duyee ma duy ñu feccee ma fecc buñ yëngalee ma yëngal ay doomu Pikine lañ lamb suñ deret lañ nekk. ba ay doo Pikine ngeen ngeen créé slogan bu bees muy 200 pour cent soq war a jàkkaarloo ak franc naka ngeen koy waajee. waaw ñun doomu Pikine yi ak magu Pikine yëpp ñoo ngi ci ginnaaw soq tey di ko ñaaxaat rek parce que soq kenn du ko wax dañ koy ñaaxaat rek. champion la doomu Pikine la man koo kenn du ko wax waaw sama toomaa di ko nuyu bu baax baax waaw di nuyu sama gars yi waaw xam nga tey soxu li fii mu jëm ni ñun dañ ko soxla ñun waa Pikine ñoo soxla rawatina ndaw yi kon suñu mag ñi xaw ma lu ñu war a def dañ ko ci ñaanal ndam bu seddu guy yàlla may ko ndam bu seddu guy di ko wan ni xale la lambang ci kanamam te pour man lii rek warul doon làmbam bii rek warul doon làmbam làmbam moo ci kanamam kon moom lu ci kanamam la war a xool te gëm naa ni loolu la xool. soo déggee da ngaa woyofal combat bi de. warul mën a di si Sokh ndax Sokh champion la xam nañ ko bu baax xam nañ lu mu capable lu mu capable ñun dañ koy ñan yàlla may ko ndam bu seddu guy. di bëre koo xamante ne ni daanoogul kenn mësu koo dóor ku nga war a ñëw jàkkaarloo ak moom oyofal combat boobu ndax wóor na. waaye ñun franc xam nañ man cëpp mam ciis a bëgguma njaaku di ko fuur waaw Franc loolu la ngay man cëpp mam ciis a bëgguma njaaku di ko fuur ñun ay doomu njaaku lañ ay doomu pilincu lañ waaw di nuyu suñu mbokk yëpp fuk mbokk yi ak ñaar yi maa ngi leen di nuyu mbokk yi ak ñaar maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp comme fukki penc yi ak ñaar yi fukki fukki mbokk yi fukki mbokk ak ñaar maa ngi leen di nuyu lan moo ko arrangé noo soq di moins lan moo ko arrangé ci kanamu Franc xeex wala bëre combat bu gaaw wala combat bu yàgg. waa tey loolu noonu duma ci mën a wax lu bari parce que mbër laa doom Pikine laa damay bëri damay ne ci géew gi kon des fois géew gi munoo dem nga wax yow ni lii nga war a def waaw soo ko pour man lépp daa complet lépp moo complet doomu Pikine du xalaat ñun duñ toog fii ba pare wala xalaat la ñu war a bëree. ñun dañuy dem ba ci làmb ji rek trouver solution lii la ñu war a bëree lii ñu bëree waaw parce que kooku ndaanaanu bëreekat yi ñoo koy def diw lii la ne non du yoon diw fu mu toog rek waaw bu demee ba ne ci géew gi sax moo war a bëre waruñu ne fii la mu ne fii lañ koy xaaree waaw bëre. soq combat yàgg yi da koy ñàkk seetlu naa lool. waaw man lu ma la mën a wax ci soq mooy yooyu yëpp ngay wax ni man xale laa. mais dama koy ñaanal carrière am yàlla na doon carrière bu gën ci moom carrière bu baax parce que Sokh champion la man gisuma a Sokh Sokh yu mu daanu yëpp Sokh moo dem daa forcé rek yëfu xale mais Sokh ba woon pour man ak bii du benn quoi sama toma la nag. loo koy digal. waaw lu ma koy digal mooy combat bi waa Pikine bëgg nañ ko xale nga doomu Pikine nga gis nañ gaynde bu nekk ci yow ak njàmbaar bu nekk ci yow. soxu soxu da ngaa bokk toog nañ man la danga ngaa pigin Pikine da ci làmb pour man loolu yow yaa ma ko gën a xam sax mais ñoo ngi lay ñaanal ndam bu seddu guy ndax làmb la mais ñoo ngi lay ñaanal ndam bu seddu guy sa tag sa koñ sa gañ loolu nga mus a gëm te loolu ngay wane yàlla nañu yàlla may ndam ci kaw Franc ndam bu sedd wi ci te gaaw ñu bàyyi la nga tàggatoo parce que yaakaar naa ne da war a dem bégali sa fans yi ak sa mbokk yi nga xamante ne ñu ngi lay xaar moo de la fin bi ak laka ngay tàggoog waa Pikine ak amateur yi. waaw lu may tàggatoo waa Pikine mooy nañ ñoo gën a jàppale xam ni Ambroise seen doom la xale bu ndaw la tey man maa ngi ci làmb doon ci xale bu ndaw doog a doog mun naa ne Pikine tey dañ maa sas Pikine dañ maa sas mais man xale bu ndaw laa maa gën a ndaw Pikine ci ñuy bëre ñëpp maa ci gën a ndaw. kon tamit et di sant sumay mbokk maa ngi sant joolaay yëpp sant waa Casamance bu baax a baax a baax di sant njaago yëpp di sant sama mbokk séeréer yi bu baax a baax a baax baax waaw ak sama mbokk xalpulaar yi maa ngi leen di sant bu baax di sant sama sama waa dëkk waa Casamance waaw di sant waa Pikine bu baax di sant waa Kakuraku waaw di sant waa Curube waaw waa Bopp Coor waaw waa waa au xam waa Cité Lobatt xam nga sama ASC waa Cosaan juróom-ñaari ASC yëpp maa ngi leen di bëggee bu baax a baax Cité Police ASC Cosaan Gazelle Cité Sotiba Daaru Jéegi Penc ñëpp maa ngi leen di bëggee waaw di nuyu suma yaay bu baax a baax a baax naan ko ñaanam moo ngi dugg bu baax di ko nuyu bu baax waaw di nuyu sama papa bu baax a baax a baax naan ko lu mooy ñaanal moo ngi dugg di nuyu sama mbokk yëpp nag sama mbokk yëpp maa ngi leen nuyu du nuyu sama mbokk Baye Fall bu baax naan comme mbooloo bi dañoo toog fee di ma xaar te tey dañuy def benn sargal amp pegaay moo ko may kon tey damay bàyyi nga dem waxtaan ak supporters yi ak ñoom pegaay man ma ne ci lu ma war a nekk ñëw dugg ak samay mbokk di nuyu samay xarit bu baax samay xarit soo ma fi si ginnaaw ku si mel ni ay Maguette seen xam nga gars yi ñoo ngi nii ay Maguette seen ay Pitbull ay Alain xam nga ay Youssou Niang ay bière ci kaw ne xam nga waaw mafia bi ay ñoom maam Cheikh suñu joueur bu mag baa ngi ne la maam Cheikh waaw AS Pikine la ne na ko gars yi jàppale bàyyi ko xel senegal nañ ko bàyyi xel waaw du nuyu gars yëpp wax dëgg yàlla du nuyu waa Pikine bu baax a baax a baax waaw du nuyu sama staff ku ci mel ni ñoom Pierre ñoom Lëri ñoom Serigne Ndiaye ñoom Youssou ñoom Ndiassé ñoom Doki ñoom Pafal ñoom Matar xam wax dëgg yàlla aw ma seen fay sama papa si ñoom ñëpp sonn nañ ñoom loota sama yaay maire Gigos maa ngi koy nuyu bu baax jàpp na ci combat bu baax waaw di nuyu monsieur le maire Pam Ndong waaw di ko sant bu baax a baax sama combat bu baax sama papa Pam Mbacké maa ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu samay xarit sama soppe ku ci mel ni Ndiaga Diop ku ci mel ni Feray ñoom ñëpp maa ngi leen nuyu ku ci mel ni Boy Morone di nuyu samay rakk ay ñoom tonton ay ñoom Amet ay ñoom Bouré gaaw yëpp maa ngi leen di nuyu bu baax jàpp ci combat bi di sant samay coach waa école de Tefes aw ma seen fay bu technopole ay doomu technopole lañ ay doomu Pikine lañ dama bëgg gaa yi ñëw jàpp ci ay xale yu ndaw lañ di wax samay coach ku ci mel ni Tidiane Diop ku ci mel ni Tidiane Diop ku ci mel ni Cheikh Ndour ku ci mel ni Père Khadim Pape ñoom ñëpp maa ngi leen di sant gërëm leen di gërëm sa um mag sama lépp njaase day sonn ci man njaase day sonn ci man yàlla na ko yàlla jàppale di gërëm waa yëpp di gërëm sama grand frère Diego maa ngi koy bégee bu baax a baax a baax Diego jàpp na sama combat baax di gërëm waa Seras mafia bi ku ci mel ni Fallou Diola Yaxya nañ ma nuyul mafia bi yëpp delloo ma ko ñoom Dégol ñoom ñëpp maa ngi leen di bu baax Jéli Lët ñoom